dañu avons euh, tey 23 euh, 8 euh, janvier ouverture euh, campagne électorale élection territoriale du 23 janvier que préoccupation bi tey homme politique yi gën a am mooy naka la ñuy jël jeunesse yi dugal leen si li nga xam Euh, ba ñu waxtaanee ñun ñi nga xam ne ñoo yor ak ñoo ŋànk suñu coalition bi ñu ne tey dañu war a def interaction entre jeunes yi ak ñun mooy wax leen lan mooy suñu programme jëmee ko si ñoom jëmee ko si jigéen ñi jëmee ko aussi si askan wi suñu paree si loolu nag ñu déglu leen Si nous avons des critique wala question questions, ñuy poser, ñu wax ñu pour que nous aussi dans notre entendement nous puissions apporter les éléments de réponse C'est ce moo indi mon innovation bi nga xam ne tey def nañ ko lu mel noonu dinañ ko def euh, bala ñuy continuer def aussi nos meetings euh, sectoriels Le programme est ah, nag xëy ñu rek programme bi dafa am comité scientifique bo xamné dafa yàggoon liguey yag enquête yag dugg ci dëkk bi et di ay am aussi d'expérience, parce que so gisee ñun suñu composante coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Rufisque Ouest ay cadre am solo yo xamné ne yag nañu def teranga ci dëkk bi nek ci dëkk bi di ay acteur politique aussi parce que entre l'acteur acteur politique et le politicien dafa am toujours différence ba ñu xaymee li nga xamné ne moy problème yi commune bi nga xamné ki nga xamné denk nañ ko fi fukki at ak juróom te deful dara lo xamné tay ñinn ni sentir nañ seen bop ñu waxtaan ak ndaw yi waxtaan ak jigen ñi ci lañuy indi conception programme bi nga xamné ne mom lañ leen présenter mais si wàllu éducation ci walu formation ci walu cadre de vie ci walu emploi même parce que am jàng nañ aussi société yi nek fi ci suñu périmètre communal di contribuer ci lu bari ci budget même de la ville war nañu mëna a am ñëriñ d'abord abord askan bi nga xamné né ñom lañu la dëkkal muy commune de Rufisque donc si lolu la ñu élaboré lu bari muy walu RSE yi wàllu employabilité des jeunes ci stage etc. et cetera té lolu yëpp defe naa né les jeunes ont compris que tay message bi leen bëgg lancer. C'est une préoccupation qui nous préoccupe nous tous pour que nak lañ leen di mëna accompagner ba li ñuy séntu si ñun yaakaar ci ñun au soir du 23 janvier ñu war ko mën a dérouler tranquillement pour ñoom